mesdames et messieurs mes chers internautes sans limite sn.com bienvenue dans votre émission ni ñu koy defee saa su nekk itam damay dem fekk ku nekk ci li ngay yëngu ma daal di lay invité waxtaan ak yow dans tous les plans ci li ngay liggéey ci li ngay yëngu lan ngay def hormis euh, ci activité bi nga nekk et à ce niveau je suis en face avec une grande actrice bi série yu bëri bëri bëri elle est devenue une grande star de la télé parce que ñu bëri dañu koy wër ñu bëri dañu ko bëgg ñu bëri dañu koy seetaan ñu bëri dafa moom dafa nekk seen idole et je veux nommer Aram alias Dior Aram bu dikkoon Aram bu Madior Dior moom laa dalal tey ñu war waxtaan ci lu bëree bëree bëri nag ah, donc euh, je pense bien que vous les chers internautes di ngeen di ngeen di ngeen comprendre moom mooy kan parce que da koy gis ah, tout le temps muy jouer avec ces jeux vraiment euh, en tant qu'actrice et c'est vraiment original tey nag moom la ñu a mën a découvrir dama koy bàyyi mu nuyoo su ko defee ñu waxtaan sama sama xarit la arab maa ngi lay nuyu. Big Taf maa ngi lay nuyu bu baax. di nuyu internet sans limite yëpp. Mhm. ak képp nga xam te yaa ngi suivre Dior rek maa ngi lay nuyu bu baax. Oh, c'était pas facile ah gis la nga nekk ci internet du wax lu bëri pourquoi loolu. parce que ma maa préféré di bañ a def benn sorti moo tax. Ah, da ngay bañ sorti yi quoi ah, <laughs> d' accord alors dañuy démarrer parce que hormis euh, Aram en tant qu'actrice Aram mannequin la woon et jusqu'à présent donc euh, gars yi peut-être taille bi la ñuy xool la beauté et pour ne pas pour jeter des fleurs est-ce que gisoo ni métier boobu noonu moment ba ngeen ci doon nekk at moment bi xaw na xaw na yàqu. non je trouve ni yàqu na que ku nekk nee naa milieu bi nga nekk yow yaay xam li la ci dugal yow yaay xam li nga ci bëgg du euh, mën nga ci nekk te du tax nga yàq ko wala milieu bi yàq la. nan nga def ba dugg ci da nga gis sa bopp nga taxaw ci seetu xool ne am nga taille bi wala nga gis ni la beauté yi la donc c'est à ce niveau nga ne xaaral ma wala gars yi ñoo xool ne la yow war nga mën a participer. non non pourtant dafa mës a nekk sama passion. agence ma def casting ak ñoom je me suis dit pourquoi pas ma jéem ko essayer comme sama passion la woon tere moon jàng sama jàng maa ngi doon jàng en même temps ci laa commencé def formation ma commencé def ko deux mois xamante ku ñu naan Famara. bu nekk TFM ma koy nuyu bu baax au passage mu jàppale ma donc teg ma ci ci ci waa ci ak si jàppale ma ba ma egg si fii. d'accord alors nga def say say études ba pare da nga jàng man ki na euh, def naa formation bi waaw. alors loolu am na formation. waaw def naa formation bi. Ah, donc vous êtes une professionnelle là-dessus. <laughs> waaw <laughs> alors seen milieu bi dafa xaw a doy waar agent yu bëree bëri bëri bëri euh, am na lenn loo xam ne moo leen tax a jóg suñ la gisee au lieu que ñu jël en tant qu'actrice am na beneen bët bu lay xoolee et je m'excuse encore vous cher internaute ak yow les propositions canapé wala yeneen ak yeneen mosoo dund yu ni mel. non non mosuma ko dund man personnellement mosuma ko dund. Mm-hmm. bon mosoo ko dund d'accord mais est-ce que amool ñenn pré euh, pressentiment ngay dem ci benn agence xam ni kii du liggéey moo ko tax a jóg. musuma dal. kon yow rëcc nga ci yooyu. waaw ah, rëcc naa ci ba li ba instant bi rëcc naa ci. Ah. Ah. mais comment se il à chaque fois bu ñu gis yenn podium yi dañu gis aram muy défilé donc choix yi lan la gars yi dañu gis ni que moment bii nii bu ñu la sololee seen yëre mooy gën a euh, niveau de vente bi mooy gën a élevé wala dañu gis ni que carrément yow tu vous pouvez faire la publicité de leur entreprise lan exactement. non xam naa sama profil moo leen di arrangé rek. Hmm. mais du leneen. agence ay góor <laughs> am na ay góor am na ay jigéen. ñooy choisir góor wala ñoom ñëppay choisir góor yi dañuy jël jigéen ñi dañuy jël. mais gars yi dañu ma aram góor yi ñooy ëpp lañ koy choisir. déedéet ñëppay jël. Mhm. d'accord ban podium nga mos a défilé pare nga regretté ko. Euh, dalaguma hmm. non non. mais ban nga mos a yéeg nga am envie mu amaat ba nga yéegaat ah joué naïvement. bari na. Hmm. podium bu ma def ma pare bëgg naa mu amaat yëpp. Hmm. Mhm. même seen milieu bi y a trop de guine. ah ma ak ñoom. d'accord xam naa ni tase googu moom mais vous avez eu des rumeurs. je sais pas je sais pas musuma tase ak ñoom. musuma tase ak ñoom. <laughs> léegi est-ce que musul musul musul parfois euh, nga nekk ci podium nekk ci coulisses yi ngay gis yoo xam ne jaaxal na la. nee naa la man yenn tentation yi may dégg ak yu bari yu may dégg ci milieu bi dama ko ciy dégg rek mais gisaguma ko en tout cas ñi may côtoyer di liggéey ak ñoom mhm. ku ci nekk ful laa gis ci yow mhm. ak fayda gisaguma ci kenn loo xam ne jaaxal na ma. d'accord mhm. lan mooy sa rapport ak Pikini Pikini production ñoom laay liggéey damay liggéey ñoom. Mm. ñoom da ngay liggéey ñoom alors damay ñëw ñu démarrer ci série bi ñu naan dikkoon nekkoon nga fa vous faites vous faisiez partie des actrices principales euh, casting lañ la fa jële wala dañ la gis ci projet bi rek comme dop après ne la kaay nga bu ji nga jëlu ñu benn benn rôle bi. waa dañ ma présenté woon ma madame Ndiaye Ndeye Awalo pour benn défilé bu ma leen waroon def xel donc ma défilé ak ñoom par la suite ci la ma monsieur Ndiaye gis directeur Pikini production waaw tonton Alioune ma koy nuyu bu baax xam naa moom soo profil arrangé ko ci benn euh, rôle dans Dikoon mu woo ma proposé ma ko ma ne pourquoi pas ma essayer. Mhm. c'était la première fois. c'était euh, je peux dire que c'était la première fois parce que nekkoon naa ci beneen projet boo xam ne série la woon mhm. mais par la suite mujjee woon aboutir. Mhm. d'accord et puis nga dem. sa première fois aram nag génn télé di jouer série bon bien vrai que yàgg nga génn lu jëm ci euh, défilé euh, défi défilé yi ci kaw seen mais étant actrice di jouer série première fois bi nga toogee ci télé jàkkaarloog yow <laughs> naka nga def et quelle était la réaction des parents. Euh, ça m'a fait autre chose parce que mosuma woon xalaat ne dinaa ko def sama carrière xalaat moo ne naa mës a def série mm-hmm. je l'ai fait avec fierté parce que xalaatu moo ne tam mën naa ko jàppale nañ ma poussé ma ci bertoon nañu bari muy sama famille muy sama entourage mooy li ma la wax comme man jaaxal na ma xalaatu ma woon ne mën naa koo def gis nañ ma ma joué ko jàppoon nañ ne mën naa ko te ba tey jàpp naa ne man mënaguma dara donc ça m'a fait quelque bi ñu la gisee lan moo nekk seen réaction waaw mooy li ma la da leen bertoon ñoom tamit ah mais ñu la yow lu la dugal ci lii non parce que xam nañ ne même milieu bi la ça va de pair lépp showbiz bi la man mannequinat bi cinéma bi lépp benn la mm. mhm. avant may ñëw ci Madior ak Dior ma en même temps bi ngay nekk dikkoon la gisoon parfois nga yor responsable marketing bi benn artiste ñu naan Pama mais léegi gisatuñ la da ngeen am problème. amuñu benn problème. ñu ngi ci jàmm bu baax. mais duñ leen doon daawoon duñ la daan gisee ci côté moment bi gisatuñ la ci. waaw ñàkk jot bi la rek. Hmm. mais ba tey ñi ngi liggéey. Hmm. Hmm. naka nga daan dundee yow en tant que nga nekk ak Pama yenn rumeur yi ñu daan teg ci ko euh, rumeur boo xasee ba nekk nit koo xam ne ñëpp lay gis. mënoo koo bañ kii see peut-être ñi ngi waxal Big Taf peut-être ñi ngi waxal Aram ñi la xamul dañ lay gis ci télé bi waxal la kese lañu man mais man benn philosophie laa am kuy wax duma la teree wax mën nga wax nit ku nekk dañ koy waxal mais li ñuy wax ci lu man mu nekk lu négatif duñ ko mës a gis ci man waa ñu nag euh, on va changer carrément de tempo dugg ñëw ci Madior ak joor nga nekk une actrice principale là su euh, déjà ni Sénégalais yi accueillir série bi bettu la. bett na ma bett ma. pourquoi bett na la. bett na ma xalaatuma woon ne ci niveau bi ñu toll dina egg si ñu ngi ñaan yàlla mu gën a yokk. bett ma parce que ba ñu nekkee di liggéey tourné nañ ko deux mois avant ñu diffuser xamoon naa ne lii bu ñu góorgóorloo dem ba ci kanam mhm. nit ñi dañ ko bëgg. Mhm. waaw. trop de séries Sénégal. bari na te ñëpp a yëpp a neex. da ngay seetaan yëpp yow. yëpp laay seetaan. ban nga ci gën a seetaan à i produit la a ñoom mosuñu laa jege nii de trois ans mois quoi ñu woo la beneen série la aram dama bëgg nga ñëw nga jouer ñu wala ñu proposer benn cachet bu extraordinaire non idole mosuñu maa woo beneen beneen série. yeneen série dañ may ko waaye mais maa ngi ak Pikine. <laughs> da ngaa bañ. non non sax. Ah. ñu ñëw ci Madior ak Dior nga fi dund benn situation bu xaw a critique hmm. euh, bien vrai que moment bii nii en tant que euh, Aram je parle pas de euh, loolu bu ko doon dund ci moom lool. waaw dina métti trop ko kenn. parce que dafa métti. Hmm. est-ce que doy dund ba ci ba ci biir nga nekk dans le pot. comme si que yaa ngi dund loo xam ne réalité la ah comme ça nga mel bëgg mel ni ku bëgg a jooy parce que li ngay dund lu nekk ci yow la mosul arrivé. Madior ak Dior li ma ci tourné dundagu ci dara dund ma ci te ñaanu ma ko yàlla mais dinaa ko seet dinaa ko tourné mu metti ma parce que mooy li ma wax rek lu metti la loo xam ne ñaanalu ma ko kenn te yéene ma ko kenn. non yow doo ko dund parfois nga xool ci nga nga sentir ne carrément yow yaa ngi rôle bi nekk nga ci quoi en tant que yaa ngi mel ni aram buy joué loolu. waaw lu tax ñu may yërëm ñi koy seetaan parce que dama koy dund. dama koy dund ba mu jeex. d'accord maintenant quand tu vous êtes devenue une grande star il y a trop de tentations les prétendantes dañuy ñëw le prétendants autant pour moi dañuy présenter wu euh, euh, les fan ñu nga xam dañuy ñëw fan sa leen tax a jóg li waa ji di wax dañuy déclencher kabay dawal indien <laughs> yooyu yëpp dina bëri euh, yaa ngi dund yu ni mel te bul ma wax déedéet yow lu ma la wax nga ne ma déedéet nag. <laughs> prétendant yi moom déjà man du star. prétendant yi moom ñëpp koy dund muy kuy feeñ télé ku feeñu tele ku nekk feeñ télé gën a métti ku jigéen non mais kuy jigéen rek dañuy ñëw hmm. loolu koy soxlawul feeñ télé hmm. hmm. aca dañuy ñëwaat ba tey ah vu que anecdote yi mooy loolu parce que parfois léegi naa da ngay tëju rek boo xasee ba pare dangay dugg sa nekk tëju li ngay génn bariwul mais sa rapport ak artistes yi am nañ nag gars yi ne dañ aram vraiment artistes dañu koo jege dañu koo songu loolu moom dama dama li gaana dama koo foree ci weewu bay yan artiste la bëri na su ma limee fii du ma fi ñi ñu la wax ñëpp samay xarit lañ ñoom ne aram artiste la ñu gisalu aram aram kay jeex na aram aram man kay moom ko loolu jeexal na wax mais artiste mooy seen lien entre waaw mais li nga wax rek artistes yi jàmm laa mën a sekk ak ñoom nee nga artistes yi ne man artiste laa. Mhm. jàmm laa sekk ñoom ñoom ñëpp nag kuñ ma ci gis rek jàmm laa sekk ak yow. Momo sama gaañ la jàmm lañ sekk. c'est pour ça ñu leen di gis ensemble. on m'a jamais vu avec lui mhm. man mii ah. déedéet. <laughs> alors toujours da du ñàkk nag nga am euh, ci série yi ngay seetaan yëpp am kenn koo xam ne moo nekk sa actrice préférée su la su la soo sañoon da ngay jouer ak moom wala nga nekk ak moom wala mu nekk sax sa xarit bu ma la laajoon kan lay doon. waaw comme li ma la man série yi benn laa doon seetaan muy Idole li may seetaan li may tourné lenn laa ba ma commencé seetaan maa joor ak joor yàggul benn actrice laa am parce que li muy def neex na ma hormis jowam nekk nit koo xam ne dans la vraie vie apprécié naa ko nee naa ne am naa estime bu bari ci moom ba ñu ma taxaw fenn wax ko muy Clara or mi film bi sekk nañ jàmm sama xarit la muy borom baax nit koo xam ne am na fu ma ko teg kantaa ay wéykat ak yooyu nag Michael Jackson laa bëgg sama biir xol te nekkatu fi. Michael Jackson men mhm. kon yow soo sañoon def benn clip ak Michael Jackson. man dama koo gëm. aka ma ko gëmoon. <laughs> waaw ma ko gëmoon moo gën de. moog Janet Jackson. Ah. aka ma leen bëgg. Michael bu ñu bu moment boobu moment boobu Michael ñëwoon rek na da lay demander en mariage. nooy def non non dama koo bëgg bokk dama bëgg sëy. mais bëgg d' accord am na fan am na bëgg mais man maa la posé question boobu. sama artiste la. d' accord waaw bu doon ñëw di la dem na daa soxla soxla. Euh, non non non non. doo accepté. déedéet lu may accepté. may def sa fête rek. Ah, waaw. Ah. mi ngi noonu sama fans la rek. d'accord événement yi dama lay fàttali deux mille euh, deux mille douze élection présidentielle yi kan moo gagné woon. Macky Sall moo gagné woon. d'accord kon Macky Sall moo gagné woon normalement di nga fàttali kan moo njëkk a nekkoon premier ministre am parce que maintenant maintenant y a beaucoup de mini premier ministre mais premier ministre kan la woon. Euh, <laughs> tur may loon big taf sama foon dëkkuma ci dëkk bi wala. yaa ngi ci série yi yaa ngi ci Clara wala yaa ngi sa yenn xarit yi ba actualité yooyu noonu doo ko suivre. naa ko. Hmm, d' accord suivre nga kan bii nii final Algérie Sénégal wala Coupe d' Afrique suivre nga ko. am na non non. est que Sénégal ñëw finalam bi bettoon na la. bett moon parce que mën nañ ko. Hmm. Hmm. ñu gagné maanaam football am wala yaroom wala wala. waaw ah, mën na football te yaru na ñoom ñëpp a mën football ñoom ñëpp a yaru mais man moom mooy sama joueur. alors mesdames et messieurs internautes sans limite sn point com je pense bien que kontaan ngeen itam yegg nañ ci suñu njeexantalu émission mais balaa boobu itam dama lay sant di la gërëm mm, xawoon na métti ça un mois ñu koy programmé toujours yaa ngi ci tournage yi kontaan naa tey ci dalal bi nga ma dalal xanaa ma bàyyi la ak nga tàggatoo ak de sans limite su waa Big Taf yatam maa ngi lay remercier bu baax di remercier internetu sans limite yëpp ak équipe sans limite mhm. di remercier sama famille bàyyi ma kenn ak samay xarit bàyyi ma kenn mhm. di wax na nag képp koo xam ne bëgg nga joor yaa ngi suivre joor nga may fekk Raffinage Beauty mhm. man maay seen égérie maa ngi bu Védène wala bu Réussisse kaw ba suuf Rafinel moo fi jaar bopp bi ongle lépp lépp ma dara dina wax ne tamit maa ngi préparé lu bees tàkk dinañ gis George ci beneen facette mm. ànd ceeg waa Rafi groupe ba tey comme PDG Clara ma koy remercier bu baax au passage moom ak équipe am yëpp bàyyiwuma kenn merci encore. merci beaucoup merci beaucoup à vous aussi merci beaucoup toute l' équipe ngi leen di sant di leen gërëm waaye tamit ñu ñu fekk ci kër yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ni ma koy waxee rek saa su nekk chaque fois émission bu ci nekk lay doon émission ñàngat la doon ci man ndax dama ciy dama ciy bi ma ci souffrir ça dire que dañ ma doon sot ay coup laa jëlee <laughs> côté bu ne ah yi manager bi ah da ngay jékki-jékki picc bu jógee fële noonu mais bon ça fait vraiment plaisir nii la doon demee chance su nekk di leen jox rendez-vous très prochainement ak keneen lay doon toujours sur Sans Limites TV bu leen ko fàtte www.sanslimitesn.com lépp luy actualité people culturelle sportive da ngeen ko fay gis